alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah salallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñu ngi bu baax ala haal di wax ne ñun ñëw neen fii Medina Baye eh, li ñu nag mooy lan bëgg yonent yàlla Muhammad mi nga xam ne moom la Mawlana Cheikh Ibrahim yaree njabootam ñëw neen fii Medina baay ngir xam ne ki ñëwal ni amul sikki ne mooy buntu yonent Muhammad ndaxte moom moo. toog wax ne waqad alima al aqwaamu anni xadimuhu fa waslu habibillah yulfa bi wasliya maolana Cheikh Ibrahim mi nga xam ne nee mboolem góor yàlla xam ne ne moom Baye mooy kii liggéey yonent bi te jokkoog yonent yàlla Muhammad Baye Niass nee na ñu ngi koy amee ci jokkook moom Baye moo tax ñun ala kulli haal ñëw nañ jokko ci jëmm jooj nga xam ne nee na bëgg yonent yàlla Muhammad farata la xam ne nee na simaalul baraya ahmaduhu buhu fardu shuyuxul huda aw suhala Baay Ñas mi nga xam ne moo ne wéeruwaay mindee fi te mooy yonent Yàlla Muhammad kooku nga xam ne mooy yonent bi Baay Ñas nee na bëgg ko farata la nee na sëriñ si jub si yëpp ci loolu leen dénk seen taalibe te moom leen leen ñaax kon ñun ñëw neen ci loolu nga xam ne moom la ñuy Baay Ñas ñaax ndax Baay nee na man Baay eh, wamat naa mboolem ñi ma àndat jëmee leen ci bëgg yonent Yàlla Muhammad lu waral loolu baa ne na man Baay is kalimati alat sama kàddu mooy li kawe kon baa Ñas moom ñi ñëwal moo jiitu ñëpp ci bëgg yonent yàlla Muhammad ndaxte tey ñëpp a ngi gàmmu ñëpp a ngi wone bëgg na yonent bi waaye kañ leen départ Baay mi nga xamante ni moom nee na man bi may bëgg béréb amagut mooy Màkka gi bi juddoo jamono amagut mooy rabiul awal bi bisu altina baak dara amagut moo dama ne xat ahbabtuhu hatta arani kuntuhu wa rabbi lam yaxluq makaanan wala waxta bëgg naa yonent yàlla Muhammad ba gis na maay moom te booba yàlla amalagut béréb amalagut jamono baañas mi ñëwal mooy ki nga xamante nee na wa dalika ibrahimu yahwa muhammadan wa amru wujudil kawdi xayru muwaqe kooku mooy Mawlana Cheikh Ibrahim mi nga xam ne bi muy bëgg yonent yàlla Muhammad kaw ni bi waxuguñ waxi préparation dara amagut ñëwal leen bàyyi baay mi nga xamante ni moo wax ne moom buy tagg yonent bi xaraf yëpp ay bëgg waqad xari waqad farihat kullul xurufi li annaha ittasat xololan tulhi li naasin aw naasiki bàyyi nee na man bàyyi su may tagg yonent yàlla Muhammad xaraf yëpp ay bëgg xaraf yi lettre yi yëpp dañuy kontaar ngir préparer jël gi ma leen war a jël taaralee leen yonentu yàlla Muhammad ñëwal leen bàyyi mi nga xam ne na moom buy tagg yonentu bi aalamu yàlla bi yëpp ay jaay katabtu walihtazal awalimu wal malak sururan bi ma usni biir abdu wal malik man bàyyi si may tagg di wali yonentu yàlla Muhammad alamu yàlla bi yëpp dañuy jaayu malaaka yi malawul aala malawul asfal ñëpp dañuy bég ngir kontaan ngir li may tagg ki nga xam ne mooy sang bi te mooy mooy buur bi te mooy ñëwal leen bàyyi baay mi nga xamante ni nee na bëgg yonent yàlla Muhammad ku ko ciy jéem a jot yaa ngi sàkk loo xam ne dafa haram te dafa jomb fa man raama darqi fi siyaaxi nabiina faqad raama amran mustahalan muharrama man bàyyi ku sak jot ma si bëgg yonent yàlla Muhammad yaa ngi sàkk loo xam ne dafa haram te dafa jomb ñëwal leen baay mi nga xamante ni nee na ku ko bëgg a jot ci yonent bi yaa ngi sàkk lu haram lu waral lool sang Njaay nee na nit kan moo koy gën bëgg boppam Mawlana sang Ibrahima Njaay nee na ana kan mooy gën a bëgg nit boppam ndax bàyyi ne na walim laa wa aynil yowma aynu muhammadin sara sirruhu fi haykali waruwaayi pourquoi pas du ma raw ñëpp si yonent bi ndax man bàyyi mbootu yonent yàlla muhammad royaat na sama jëmm ji sama lépp yonent yàlla muhammad la kon tey jamono tey ku bëgg a noppalu ku bëgg a gàmmu gàmm goo xam ne da nga yëg yonent yàlla muhammad ñu ngi lay woo fii ci Medina Baye moo tax ñun ñu dagg àll yi dagg man niñ yëpp ñëwal ma Cheikh mi nga xamante ni nee na yonent bi du fi jóge gàmmuwaat muy jàngale rek mooy al ismu comme tey ni nga ko xamee bisu juddu bu delsee loolu si la ñuy ngénte loolu la ñuy feetee ngénte comme Baye fekk na fi nit ñi daan def bisu juddu bi di ko gàmmal te gàmm mooy ngénte mu ànd ak ñoom si loolu si xorma waaye dëgg-dëgg gàmm mu fekkee mooy feete juddu gi dañ war a bàyyi ba bis bi dels moo tax gàmmuwaat dëgg dëggantaan mooy gàmm Mawlaana Sang Ibrahima Ndiaye suñu sëriñ di jàngale ne. yonent yàlla moo yonent yàlla aadam bi nga xamante ne yàlla sant na malaaka yi ñu sujjoodal ko iblis dafa bañoon malaaka yi benn sujjoot leen sujjoot biñ sujjootee diir ba wax am na si borom xam-xam yi ñu naan bisek genn wàllu bisek ak lu munta demee sujjootal neen ko biñ siggee gis ne iblis sujjootut ñu sujjootaat ñaari sujjoot ba ngir sant yàlla kon yonent yàlla moom man mooy jëmmi xéewal gi sujjoot googu boo ko génnee si gàmmu mu jeex ndaxte gàmmu mooy màggal ndaxte yàlla neen inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna alan kon ñu ngay sujjootal yonent bi si biir julli ji moo tax ñu gàmmu premier gàmmu bi gàmmee gàmmu bu njëkk jog gis ne am na ñu taxaw naan gàmmu bi daala ñu ñëwaat gàmmaat ñaareeli gàmmu gi ngir sant yàlla kon alaakulaal ñun ci lépp sant yàlla la dañuy ñëw nag di gàmmu gàmm goo xamante ni waxtaanee mbir yonent bi ndax yonent yàlla moom moom la yàlla woon laqad manna allahu alal muminina yàlla xéwal na way gëm ñi ba mu yónnee yonent yàlla Muhammad si ñoom kon yonent yàlla Muhammad mooy jëmmi xéwal gi yàlla ne wa amaa bi ni'mati rabbika fa haddis xéwalu yàlla gi ñu war koo waxtaane kaw mooy yonent yàlla Muhammad dama ne jamono tey den rafle jikko yu bari te yonent yàlla Muhammad mooy masalul ala mooy exemple bi gën a kawe kon dafay baax ñu dajale nit ñi xamal leen kan mooy yonent yàlla Muhammad yonent bi ni mu meloon ci tolérance baale nga xam ne nit ma na jaasi bëgg koo rey na ko ana tey kan moo mën a dox suma diggante yow bàyyi ko mu jox ma loxo ana kan moo mën a dox tey su ma diggante a ah yonent yàlla moom man ne ko allah yàlla rek waa ji tiit ba jaasi ji wadd yonent bi for jaasi ji jàkkaarloo waa ji ne ko yow itamit ana kan moo mën a dox su ma diggante yow waa ji ne ko kun xayra axizin tane ma gën ma yonent yàlla moom baal ko maanaam tolérance googu baalante googu tey ñun ci réew yi dañ soxla nit du ko man rek. jaay ko doole yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam toog na ci biir ay saabaam benn waay ñëw poñe ko na ko yéen waa Bani Hashim di ngeen fay bor bor bi ma yoroloon fay ma ko taalib yëpp ngi toog gars yi bëgg a jël jaasi mu ne leen déet baal leen ko bu leen ko laal inna li saahibil haqqi maqaala wala inna li saahibi dayni maqaala ku yoreel bor bu ko neexee wax ci noonu yonent bi jàngal saaba yi na leen njiit dafa war a dal ak mbooloo loo yor yor ak doole loo yor yor waroo koy jaay ay nit xoolal yéen ci àll moomoon ni mu def te bu ko neexoon na gars yi duma leen ku toll ni man seen sëriñ mu may poñe ne leen wax leen ko na ko na fayee ko fayee ko bu waaye man mii seen sëriñ naa fay bor yéen ci àll moomoon sallallahu alayhi wa sallam war nañuy jàng nit ñi tey niñ bëggee xam ne aduna rek moo leen yitteel te yonent bi nee na daan na dox mbedd màkke yi doj di ko woo naan ko yow yonent Yàlla Muhammad kaay jël ñi ñu nekk or ñeel la waaye loolu yëpp mu dummuyu ko na moom yàlla rek moo ko tax a jóg nga xam ne toog na luy tolloo ñaari weer këram ci tàkku fa nga xam ne bu daan julli sax day takk biir bi ay xeer pour mun a am doole pour mun a jaamu yàlla ak cër bi mu am si yàlla yëpp xool ko nu mu dummooyu àdduna ba xam ne kenn mënu ko woon a koromp ba mu wàcce yoonu dëgg yu mu nekk loolu yëpp lu war a jàngat la pour ni ñi xam kan mooy yonent yàlla Muhammad yonent yàlla Muhammad moomu nga xam ne moom mooy jëmmi mooy jëmmi texe bi maata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa dir'u marhunatun inda yahudiin yonent bi mu fiy jógee mbubu koŋ bi mu lan xaree ñu ko tay la benn yahud ngir lan dundu këram dépasse la loon leb ci benn boutique yahud benn juif lebal ko dundu këram mu tayle euh, mbubu koŋam ka nga xam ne adduna yëpp wuyu si woon nañ ko mboolem teraanga adduna mu yoon woon si loxom ànd ak loolu yëpp gis nga li nga xamante ni moom la mujjee kon yooyu yëpp ay jàngat la ñu wala a nga xam ne yonent Yàlla Muhammad dundam bu dee ci wàllu doylu boo ko xoolee gis ko ci bu dee ci wàll muñ boo ko xoolee gis ko ci bu dee ci wàll wàll mun a a jéggale naka noonu ñëw na toog ci Medina saa bay wër ko booba diina islam yaatagut benn arab yi jógee fa de kookow ñëw gis jàkka ji rek ci mi tobay ji ngeen baal ma commencé tuur ndox gars yi bëgg a jóg dal ko mu ne leen dal leen ñu may ko ba mu tuur ndox ba pare yonent yàlla moom jóg ndànk ci tekkayam nga ak dal nga na ko eh innama hada masjidun nataabadullah fii lii jàkka la dañ si jaamu yàlla mu luy jàkka waa ji xamu ko yonent bi ko nu mu demee mu ne ko yow kan mu ne ko man maay yonent yàlla Muhammad waa ji wax fa wax goo xam waxi caalin na irhamni wa muhammadan wala tarham maana ahadan yàlla yërëm ma man Muhammad bu si boole keneen ndax lu waral loolu gis na gars yi nu ñu doon réagir ñàkk dal gi nekkoon si ñoom donte ñu mat leen waaye gis euh, lu tol ni jàkka waa ji di ndox ñu bëgg a ñëw dal si kawam yonent bi ne leen dal leen waa nag ni mu gisee yonent bi nu dalee ak nu mu nu mu ko jàppalee ak nu kontaan si loolu waaye neeree ñële ne yàlla yërëm ma man ak Muhammad bu si boole keneen yonent yàlla Muhammad ne ko laqad hajarta waasian yaa ngi bëgg a xatal lu yaatu kon bu ñu yonent yàlla Muhammad làmboo dafay baax. liyaghfir laka lahu ma taqaddama min ma ta'akhkhar yàlla nee na ibbee na la ibbi gu biir jéggal na sa bakkaar bu njëkk ak bu mujj lu fi jar ngay naafil ba sa tànk yi kon cër bu nit mu naan si yàlla yonent bi la ko ëppale ànd ak lim am cër yëpp terewut jaamukat yàlla la woon jaamu yàlla goo xamante ni wér na la yow nit àjjana nga jaamu yàlla goo xam ne wér na la yàlla jéggal na la si loolu yonent bi tontu sayyidatuna Aysa ne ko afala akunu abdan shakura ndax boog du ma nekk jaam boo xam ne day sant yàlla kon bu la yàlla defalee itam ak teraanga boo mun a am cër boo mun a am si yàlla war nga mun a nekk rek bokk si li yàlla waxoon i'malu ala daawuda shukra et eh, yéen wax na ngeen jëf yàlla na ngeen jëf ngir sant yàlla kon ñu ngi sant yàlla bu baax ñun suñ gàmm sant yàlla la suñ julli sant yàlla la suñ lépp sant yàlla la lu waral loolu ala daawuda mu sikki moom la yàlla wax ni ya daawuda inaa jaal naaka xalifatan fil ardi te kooku eh, eh, yàlla dafoon muy xalifa Baay Ñas ñëw na fii sin sëriñ ne wa nuu yaa daawud baa nee na woyof nen man a yow daawud inaa jaal naa ka xalifatan fil ard kon daawuda bu mooy Baay Ñas daawuda war na am Suleymaan alquran ne wa warisa Suleymaanu daawuda Suleymaan moo doon daawuda bàyyi ne bàyyi na mulkan kabiran lanal firdawsi atlubuhu malik wa man malakta lam yusidi loolu doyut bàyyi ne rumtu lati qad naala zul qarnayni yaa rabbana bi saydil kawnayni waaye yemu ci mun rumtu wirasatan suleymaniya man baay maa ngi sàkku ndonnok suleyman kon boo waxee ne wa nuudit yaa daawud moom mooy daawuda wëlbatu ko naan rumtu wirasatan suleymaniya kon ala kulli haal loolu li muy jàngale kon suleyman tey mu ngi ci kër Mawlana Cheikh Ibrahim moo tax ñun ñooy aala daawud lépp suñu jëf yëpp sant yàlla la ñu ngi woo nit ñi neen gàmm neen màggal yenentu bi yàlla ku ko màggalut itam yàlla màggal na ko kon ku bëgg a noppalu gàmmul boo demee bëgg moo gàmmul deel salaam waaye munoo fexe fexe ba fii daganal musaabaqaat quraan ya naan concours alquran yi nga bëgg koo dëggal ndax doolu amu doon si saaba yi ah, yonentu dafa ko saaba yi dafuñ ko mais day dëgëral diina kon man ahdasa fi amrina haada maa laysa minhu huwa raddun dama ne bëgg yonentu bi dajee ngir bëggee yonentu yàlla Muhammad ak islaam bu sell bi loolu ku ne bokk ci diine gi Seydi Babacar ñu ngi leen di ndokkeel di ñaanal seen seen télé bi mooy Sénégal set yal na yàlla gën koo dëgëral gën koo barkeel macha allah kii moom sunu waay la fu ñu woo rek dañuy ñëw mooy Seydi Babacar ñu ngi bëggee waa Sénégal set yëpp di wax ne bis ni ki tey ñun suñu télé la Babacar fu mu nekk rek ñun ñu ngi foofu ñu ngi bëggee ñëpp macha allah kontaanee nu bu baax.